bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu alamin wa ala alihi wa saxbihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddin mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu barakallahu ab nettali la boo xam ne bu yaram la ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala ki solo qissa bi moom mooy al imam ibnul jawzi rahimahullahu ta'ala si téereem bu ñu tuddee taarixul umam wal muluk al imam ibnul jarir rahimahu dafay wax ne si jamonoy si atum 240 si gàddaay bi maa ngi nekk makka si jamonoy aj bi ma dégg benn waay boo xam ne moo nga jóge si dëkk bu ñuy wax xorasaan mu taxaw di woote mu ne yéen waa màkka képp koo xam ne dafa gis xaalis bu toll nii mille dinar mille dinar na ko ma ko indil te mu xam ne sama xaalis la mu ne mu waxee loolu ma gis benn paa boo xam ne màgget la mu ñëw ci moom mu ne yow waa ji nga xam ne dangaa jóge xorasaan yow waa ji nga xam ne sa xaalis dafa réer na nga xam ne ñun suñu dëkk bi fii dañaa ñàkk te nga defal ki ko gis neexal masala nga wax ko ne képp ko gis mille dinaar yi euh, dinaa ko may cent dinaar ngir mu nekk ab neexal boo xam ne ki ko gis rek dafay sawar ngir indi la ko ba mu mun njëriñoo cent dinar cent nga xam ne dañ ko koy jox moom mi waa ji nga xam ne waa xorasaan la mu ne déedéet képp ku indi alal ji dama ko fay dara waaye dama koy bàyyi ak yàlla subhanahu wa taala ibnu jarir mu ne paa bi dellu këram ma topp paa bi ndaxte man yaakaar naa ne paa bi xëy na dafa gis alal ji moom moo tax muy wax loolu waa ji léegi ma topp ko ma gis ko mu dugg si kër goo xam ne kër gu màgget la kër gu sonn la bu mu duggee ma dégg muy wax ak soxna mu ne ko yow lu baaba boron alal bi gis naa ko borom alal bi gis naa ko waaye sax man def naa pexe ngir amaana mu euh, may ñu dara si xaalis bi ndax man wax naa ko ne tey ngaa wax tey ngaa wax ne képp ko gis alal ji may naa ko cent ngir nga xam ne su ko nangoo rek dama koy indi xaalisam soxna si tontu ko mu ne ko ah yow Abu Xayyaas paa bi moo ngi tudde moo ngi tudde Abu Hayyaas mu ne ko xam nga ne ñoo ngi dund maanaam man ak yow ak suñu famille ñoo ngi dund cinquante ans ñu nekk ñu sonn lool ñu nekk fii man ak say ñaari sœur ak sama yaay ak sa ñeenti doom yu jigéen ak yow ñuy juróom ñeenti nit ci kër gi te dund bi nekk lu metti cinquante ans ñoo ngi dund ci euh, ay nattu ak xiif yàlla subhaanahu wa def na ba nga gis mille dinaar yi te nga kaa rek ñu dépensoo ko amaana yàlla subhanahu wa taala wuutal euh, borom alal ji li ko gën wala boog mu defal la tawfiq defal la ubbee ba nga mun amaat amaat yeneen mille dinaar nga delloo ko euh, borom alal bi Abu Xayyaas mooy paa bi mu ne man instant bi am naa quatre-vingts ans ruus naa di lekk alalu jàmbur bay lakk sama bopp si safara sama yaram bi am naa yërmande si moom ba tax na duma ko yóbbee luy lu koy lakk ëllëg bis penc léegi ñu toog léegi bi bëgg naa delloo delloo alal jàmbur bi waaye dafa soxla waaye nu muy def ala kulli xaal bu ma xëyee itam paa bi déggaat waa ji di woote waat yéen waa Makka képp ko gis sama alal ji na ngeen ma ko indil moo ngi toll si 1000 dinar paa bi ibnu jarir mooy nettali ba léegi mu ñëw si waa ji mu ne ko yow borom alal bi wax naa la ne démb euh, nga neexal nga defal ab neexal képp koo xam ne gis na ko loolu day tax nit ñi sawar wax naa la nga defal ko 100 dinar nangoo léegi comme bu ko defal cent dinar defal ko dix dinar defal ko dix dinar waa ji mu ne déedéet man ma koy bàyyee yàlla mu fay ko képp ku gis sama alal ji indil ma ko dama koy bàyyee yàlla mu fay ko euh, paa bii di Abu Xayaas mu dellu këram dafa xiif sonn amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñuy dépensoo moom ak njabootam waaye nu muy def léegi mu xëyaat itam mu déggaat ba léegi waa di di woote waat di wax yow waa Makka ko gis sama alal nanga ma ko indil moo ngi tollu si mille dinar léegi bu amee paa bi ñëwaat mu ne ko yow e, borom alal bi wax naa la barki démb defal cent dinar nanguwoo démb mën a la e, dix dinar nanguwoo tey nag duma la wax lu dul benn dinaar kese taxawal wax ne mille dinaar yi ku ko gis rek dinaa ko jox benn dinaar benn dinaar boobu benn xaajo dinaar bi ma maanaam mun na kaa jëndee lu muy liggéeyee beneen xaaju dinaar bi mun na kaa jëndee maanaam benn gàtt boo xam ne da koy da koy rat ngir mu njëriñoo ko mu dundee ko ak ak waa këram ndaxte ñun suñ dëkk fii dañaa dañaa ñàkk waa ji taxaw fu mu taxaw rek mu ne man de sama alal ji ku ko gis ba indil ma ko li ma koy bàyyee yàlla mu fay ko waaye benn dërëm duma ko duma ko si jox tabi bu mu gisee ne waa ji nanguwul dellu ginnaaw benn yoon mu xëcc ko mu ne kaay kaay ñu ànd bu ñu àndee dem ba këru paa bi bu ñu egsee paa bi dugg génn indi xaalis bi mbuusu xaalis bi nga xam ne mille dinar moo ngi ci ibnu jarir moo ngi gis lépp fekkee lépp itam mu ne ko sa xaalis bee ngi nii waa ji bu ko jëlee mu jël ko konte ko mu fekk ne manqué wul dërëm mille dinar kes bi dabt la mille bi dabt léegi bu loolu amee waa ji waxul sax jërëjëf waxul lenn dafa jóg rek mel ni kuy dem mu dem ba egg si buntu kër gi mu taxaw dellu ginnaaw mu ne ko yow paa bi di Abu Xayyaas man de na nga xam ne sama wayjur bu góor moo gaañu avant mooy gaañu daf ma bàyyeel alal dafa ma alal mu ne ma alal ji nanga ko xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi nanga ko saraxe ceeru alal ji nanga ko saraxe te alal ji yépp maanaam ceer bi moom laa yor nii moom laa indi nii te nanga xam ne depuis bu ma génnee Xorasaan mooy sama dëkk ba ba ma egg fii nii gisuma ku ñàkk comme ku ñàkk ni nga ñàkkee yow kon nanga xam ne mille dinaar yépp yow yaa ko moom loolu nekk loo xam ne lu rëy la lu màgg la nekk loo xam ne itam jàngale la boo xam ne dañ koy jàngee si taxawaay Abu Hayyaas waaye itam ak lu ko yàlla faye subhanahu wa léegi bu waa ji defee loolu mu wane ginnaaw dem rek Muhammad ibn Jarir Tabari itam topp dem ndaxte fekkee na mbir mi léegi dafay dellu moom itam fu mu nekkoon rek paa bi seen ko di Abu Hayyaas mu woo ko mu ne ko yow xale bi kaay yow doo demee noonu du yombe du yombee noonu ndaxte gis naa ne fekkee nga lépp li ma tàmbalee wax ak borom alal ji ba tey jii lépp nga fekkee te kat ñun jàng nañ ci xadis ci yem sasam muy wax ne képp koo xam ne yàlla subhanahu dala indil alal kenn may la alal bu ko delloo jël ko nga njëriñoo ko ndaxte weesu gi yàlla la boo xam ne moo ko indil bu ko delloo te mbir mi fekkee nga ko fekkee nga lépp kon yow tamit di nga si am di am si alal ji alal ji mille dinaar la te ñun waa kër gi fii neuf personnes lañu ak yow muy dix personnes kon kenn ku ne si ñun dafay am cent dinar te su ne cent dinar jamono yooyu lu bari la su la neexee nga ne benn million la moom Abu Xayaas mu seddale alal ji noonu waa këram ñoom ñëpp kenn ku ne am benn million boole ko euh, imam ibnu jarir tabari moom itam mu am si benn million boobu moom mooy cent dinar ibnu jarir mu ne alal jooju daa jël ma sakkoo ko xam-xam maanaam njëriñoo ko bu baax a baax di ko jëndee euh, li ma li ma soxla ci sakku xam-xam mu dem ba jimi jamono ma ñëwaat makka ma laaj ana abu xayaas ñu ne ma gaañu na ana ay seeram ñu ne ma gaañu na gaañu nañ ana ay doomam ñu ne ma ñi ko tàkk ñoom ñooy buur yi maanaam ñoom ay jabari jabari buur lañu mu ne saa yi ma demee saa ma demaan Makka si ñoom laa doo wàcc ma leen di nettali xew-xew boobu ak ni ma ko fekkee loolu nekk loo xam ne daf leen di wettali daf leen di fàttali daf leen di kontaanloo mbokk mi lii mooy xissa bi si tënk ak gàttal mu bari ay jàngat lool lool lool kenn ku ne si ñun mun na si tiré ay leçons yu baree baree baree bari bokk na si leçon yi ñu si tiré moom mooy ragal yàlla subhanahu wa taala mooy lu yàlla waxoon wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuquhu min xaysu laa yaxtasib képp ko xam ne danga ragal yàlla subhanahu wa taala borom bi dafay daf lay defal genn waay waaye tam da lay wërsëgal foo xam ne yaakaaroo ko woon benn yoon kon xissa euh, bee ngi noonu di ñaan yàlla subhanahu wa mu njëriñ ñu te boole ñu moom borom bi subhanahu wa si ñi nga xam ne def leen di gërëm mu boole ñu si ñi nga xam ne suñu dëggee wax dañuy tànn li gën li gën a rafet ñu njëriñoo ko barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi